mbir yi nga xam ne day génne nit ki diinal islaam amaloon nañ ci ñaari jotaay bu si njëkk mooy ashirk moom mooy bokkaale yàlla borom bi subhaanahu wa taala yaakaar naa faram fàcce nañ ci luñ ci war a faram fàcc ñaareel bi moom mooy nit ki nga xam ne dafa jël diggante ak yàlla def fa ñeneen lu ñuy tuddee tawasul lu tasawuf tasawuf di tudd tuddee ku lay yóbbu ca yàlla yooyu yëpp ay xeetu bokkaale la yoo xamante ni maa anzala allahu biha min sultaan léeg-léeg nit dina laajte la moo tax ñuy jàng luy yàq lislaam te duñu jàng luy defar lislaam ñu delloo leen ci ñaari mbir lu si njëkk mooy waxu saxaabi aljalil muy xuzayfa xuzayfa nee na kenn la ci saxaaba yonente bi sallallahu mu ne kaana annaasu yasaluuna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam an ilxayri wa kuntu asaluhu an ilcharri maxaafata an yudrikani mu ne nit ñi saxaaba yi laaj yonente bi sallallahu wa sallam lu baax rek lu baax mu ne man xuzayfa ma koy laaj safaanu baax lan moo tax mu ne ndax bugguma di jege safaanu baax ndax nit bu xamee safaanu mbaax rek day mën a protéger li nga xamante ni moom mooy mbaax mais bu jàngee mbaax te jàngul safaanu mbaax day jaxase diggante lu baax ak ak safaanam day jaxate day jaxase diggante lu baax ak ak safaanam loolu nag moom mooy moom mooy muscle bi moo tax jullit gis ku bëri ko am day julli di woor fekk def na lu koy génnee diine lislaam te yëgu ko day julli du wor fekk def na lo xamni da koy genné diina l'islam te yëgu ko ñaata ngeen di gis ñuy julli du wor te dañu jébbalu ci ab sëriñ ngam dalay genné dina diina ñaata ngay gis muy julli du wor sa yu waxé ne bu sëriñ bi bayi yalla du tuddu yalla ñaata ñoy julli di wor ba nopi gëm ni àllaaxira am na ab sëriñ bo xam moy teyé ci loxom yobbu ko ci yalla Lo di ngeen ko dégg comme nit bu fekkee dafa xam lu baax te xamul safaan bu baax bariwul njëriñ loolu nag moom moo dal ñu bare bare bare bëri tey ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy jullit ñi moo tax boo xamee lu baax xam julli xam woor xam joxe azaka xam nu ñuy jàppee xam nu ñuy jullee faa nga xam tamit lu koy yàq ndax loolu yëpp boo koy def ba pare am loo xam ne da koy yàq hmm, say jaamu yàlla amul njëriñ نعم modérateur yi mute leen rek ah, ku saaga wala wax fi wax bu yàllu da ngeen di mute rek mais bu leen euh, euh, bu leen bloqué da ngeen koy mute bàyyi ko muy naam bismillah naam bismillah athalithu man lam yukaffir al mushrikina aw shakka fi kufrihim أو صحح مذهبهم كفر نعم بيجل لنكو يونس نعم نعم جل وهنا الرابع نعم الرابع نعم بارك الله فيك نعم حرام ما الرابع نعم ينم كيكس ها نعم نعم الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر نعم الشيخ رحمه الله nee na ñeenteel bi nga xam ni day génne nit ki diine lislaam mooy ku jàpp ni am na beneen njub bu gën njubub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàpp ni am na beneen njub bu gën a matale njubub yonente bi sallallahu alayhi wa kafara ijmaan koku weddina yalla genn na ci diin islam ijmaan ci li nga xamne borom xam-xam ñoko ñoko ko est-ce que dégg ngeen wax ji ki neena julit la wala sax du julit ak lu mu ta wote parce que li muy wax ci julit luy génne ni diin lislaam julit bi nga xam mom japp na ni amna njubu keneen ku gën njubub yonente bi sallallahu alaihi wasallam am na njubu keneen koo xam ne moo gën a mat njubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko génne diina lislaam ma joleen exemple déggoo leen fii ku ne yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne ma romb yàlla ak yonente dem ci sëriñam déggoo ku taxaw ne bu ma wooroon ba mu am fukk ak juróomi fan wala ñaar fukki fan sëriñ bi ne ma dogal damay dog déggoo leen ko fi ba sax weesu na lool déggoo ku ne man sëriñ bi moo ma gënal yonente bi romb na foofu sax bal sëriñ bi sax moo ma gënal yàlla kàddu yi yëpp dégg ngeen ko te fuñ koy waxee du fenn fudul Sénégal njaay gii dañ koy waxee déggoo ku ne boo amee ñaari kuy walla nga am benn kuy rek boo ko amee tabaski jot mu ne kuy ba denc ko ba ba màggal gi déggoo dañ ko wax loolu kooku jàpp na ni am na beneen njub bu gën njubu yonente bi sallallahu alayhi wa njubu yonante bi moom mooy tabaski bu jotee nga rendi nga rendi sab gat waye moom jàpp ne amna benen njub bu gën lolu moy magal wala xew-xew wala gàmmu neena na dencal dencal sa kuy kuy bi nga waro rendi tabaski di njubu yonante bi sallallahu alaihi wa neena nee ko ba magal nga do ko rendi ki moy ki nga xamni dafa japp ni am na beneen njub bu gën njubu yonente bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ni moom lu mu jiital mooy tarixa bi charte tarixa bi njubu tarixa bi soo ko nee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy njubam mu ne la waaye tarixa bi lii la wax ba joxeen exemple Bass Abdou Khadir fi génnee ne ba fi génné ne magal mo gën tabaski ñepp di dégg mourid ya koy layal yalla lañ doon wax dafa ni ñun ci murit mo ñu gënal tabaski waaw ñun dafa ni ñun d'accord nañ ñom né na ñom wa ñi nga xamni joko doon layal né na ñom ci ñom la wax bu dé ñom la loolu mëna nekk koku kon amna benen njub bu ko gënal njubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom neena mom amna mu njubam njubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tabaski nga rendi neena njubu yonente bobu amna leneen lu ko gën mom moy xew-xewu serignam ak xew-xewu mamam, moko gënal li nga xamanteni mom moy njubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi sallallahu alayhi wa bu daan xutba la la doon wax fa inna asdaqa alxadiiti kitaabullah wa xayra alhadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi njub bu gën ci njubi mooy njubu yonente bi sallallahu alayhi wa waaye ñun tey am na beneen njub boo xamante ni moom lañ jël teg ko ci kaw njubu yonente bi sallallahu alayhi mooy ban jub mooy ban jub mooy njubu diw ak diw njubu yonente bi julli da cee bokk ku julliwul yëfër nga Sénégal am nañ beneen njub bu ñuy wax Baay Faal beneen njub boo xamante ni cheenam mu ngi jokk ba ci ba ci Ibra Fall nee na njubu kooku mooy bañ a julli ñu taamu tànn njubu kooku ci njubu yonente bi sallallahu alayhi wa kooku lu mu jàpp lu mu fas mooy anna hadiya gayrihi axsanu min hadiyihi lu mu fas mooy comme njubu kooku noonu moo gën njubu yonente bi sallallahu alayhi wa amul benn boroom xam-xam lislaam bu sikki sàkk ci kéeféeru ñooñe wala kéeféeru kooku amul lu dul Sénégal ndax kuy woote woo jullit nga jël lenn ci principe bu lislaam wala lenn ci principe bu diine lislaam wala lenn luy diine nga ne man ci yonente bi sallallahu alayhi laa tënku waaye nag am na foo xamante ni am na beneen njub bo xamanteni mom koku mo gën njubu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow génn nga diine l'islam yàlla neena na yonente bi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow yaay jubal nit ñi ci siraatal mustaqim yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam sa njub moy njub bi nga xamanteni mo tek nit ñi ci yoonu siraatal mustaqim sa njub moy njubu deug sa njub moy njub bu yóbbu nit ñi aljanna ñak top sa njub yo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moy mooy yóbbu nit ñi safara wala iyaazu billah wala iyaazu billah motax depo borom xam-xam yi la dëppoo bi ibnu taymiya tuddu nako depo bi an-nawawi tuddu nako depo bi ibnu hazm rahimahullah tuddu nako ko jëlee ko ci imaam ahmad képp ku taxaw gëm ni am na beneen njub am na beneen yoon boo xamante ni yow moom ngay jiital ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow weddi nga yàlla borom bi subhaanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi kii moom la def ni ba bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa <clears throat> sa waay kay gaar ma caricature yonente bi da cee bàyyi loo xamante ne dafa mat sëkk taraktukum alal mahajjati al bayda layluha ka dama leen teg ci lu leer naññ guddeem ak bëccëgam ñooyam amul lu ci lëndëm amul lu ci lëndëm guddeem ak bëccëgam ñoom ñooyam sallallahu alayhi wa خطبه ييب لول لاكاي خطبه خطبه لول لاكاي تامبالي ان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مر بوك دا تي الهادي الهادي وين صلى الله عليه وسلم كيغا خامني داي جوبلي تي موم لا نيي جوبلو داي جوبل نيت ني واي نك التصوف نك بحر لا ساحل له géej la bu amul tafes tasawuf ñoom dañoo ñëw indi lu ñuy tuddee xaatif indi lu ñuy tuddee li nga xamante ni moom mooy rannaan moo tax boo demee ci usulul tasawuf ñu ci mel ni al-Ghazali ñu ci mel ni ibnu sabain xakimu tirmisi kàngamu tasawuf yooyu Cheikh Tidiane sax da koy tudd ci jawahirul maani da koy junj ñoom dañ naan yàlla dala may xaatif xaatif mooy da ngay toog sa sa sa sa ruq rek am am luy sone sab nopp tang tang tang tang tang nga ne ko entrée mu ne la yow kaaba gi toxal nañ ko yóbbu nañ ko sa dëkk nga ne huu tey xaatif dikkal na ma nga tëb maanaam suuf de dañuy kontaan bu leen dañuy kontaan dañ koy bind ataanil xaatifu yawma kaza wa kaza wa kaza wa kaza moo tax ibnu sabiin ak xakimu tirmisi ñoom dañuy bind ne xaatif dikkal ne leen ñu bind dat boobu leen dikkal bis boobu leen dikkal ak ak minute boobu leen dikkal lépp dañ koy bind parce que loolu ñoom dañ koo boole ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy seen masaadiru talaqi maanaam fi nga xam ne ñoom fa la ñuy jëlee ay ay source wuuteeg ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa seen source lan la qaala allahu qaala rasulu qaala sahaba moo tax ak ñoo wuute ak ñeneen ñi ak ñoo wuute ak ñeneen ñi ahlu sunna wal jamaa comme njubu yonente bi salaa salaam ku ko fi bàyyi topp beneen njub donte da ngay woote njub bi nag nekkul d'une manière générale même bu fekkee njub ci lenn la ma jox la mathalan jullit la day julli day woor day natt azaka day def lépp waaye lenn ci njubu yonente bi salaa salaam masalan ñu ne fu weer feeñee ci dëkk bi nga nekk na nga wor loolu mooy njubu yonente bi sallallahu alayhi wasallam borom xam wuute wuñu ci dëkk bi nga nekk weer feeñ fa nga bañ a woor wuute wuñ ci de lu ñu wuute mooy zone yi maanaam zone zone bu nekk bu gisee weer ndax da ngaa war a wor wala da ngaa war a woor yi fa la ñu wuute mais wuute wuñu yow nga nekk biir Sénégal ñu ne weer ba feeñ na kaolax feeñ na Saint-Louis nga ne da ngay xaar sam ndigalu sëriñ kooku mooy ki nga xamante ni dafa jël beneen njub jiital ko ci kaw njubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku wedd lislaam dangay dégg Sénégal ku ne na xam naa ni weer bi feeñ na gis naa ko su ma ko gisoon ak sama bët sax te sëriñ bi wax waxul waril wala nga woor duma woor duma wari la hawla wala quwwata illa billah kooku comme du ko cheikh bi waxee kooku kafara ijmaan kooku wedd na diinal génn ci diinal islaam ndax dafa jël beneen njub dafa jël beneen yoon dafa jël keneen ne kooku njubam moo gën njubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu xoluma loolu moo bari ci ci ci tey laa qadar allah mu ne leen dañ naan iqaamatul xujja est-ce que am na iqaamatul xujja moo tax wax ni iqaamatul xujja léeg-léeg day des ci nit ki lan lay wax duñ ne lépp rek faa am iqaamatul xujja faa nga leeral nit ki est-ce que nit ki xam na ni lii baax na wala baaxul ku taxaw ne ku taxaw ne su ma gisoon weer bi sax ci samay bët te sëriñ bi joxuma ndigal du ma woor du ma wori kooku ndax am na luñ koy leeralal kooku amul luñ koy leeralal kooku ji kooku waxam leer na ki ngay leeralal mooy ku ne no damay xaar ndigalu sëriñ. parce que ndigalu sëriñ dafa am solo naan tawassul ak faa nga am tawassul faa nga am koo jokk waa kooku nga ne ko ay eh, kaay lii nag bokk ci nga commencé koo leeral mais ku la ne ku la ne su ma gisoon ak sama bët su ma sëriñ bi sax du ma woor du ma wori lan nga koy leeral kooku leeral na boppam c'est fini moo tax Cheikh mu ne attends iqaamatul xujja ci tawxiid amul ci taw tawxiid ku taxaw ne yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonent bi taxaw ne ma romb leen da wuyu sëriñ bi kooku kenn du ko wutal ngàntum ñàkk xam déedéet loolu fitra la fitra bu leer la xam na ne yowmal qiyaam amul kenn ku mën a noot yàlla loolu leer na xam na ko ku taxaw ne diw moo sàkk yàlla kooku la nga koy leeral kooku léegi xool ba xam dafa màndi wala dafa dof kooku loolu la xool dañu xool ba xam kii kaar yi kaar yi moo ko dal wala wala moo ko dal walla dafa naan mais à part loolu bu fekkente ni màndiwul naanul doful dara dalu ko islaam du xool ba xam kii maanaam dañ ko war a leeralal la mu def la mu la mu wax ni wala mu def nii xam na ni baax na wala baaxul déedéet comme loolu mooy ñeenteel bi nga xam ne day génne nit ki diine lislaam ku jàpp ni am na beneen yiw wala am na beneen yoon am na beneen njub bu gën njubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naam ñu dem ci beneen bi naam alxaamisu man abgada شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر نعم juróomeel bi mooy buy génne nit ki diine lislaam nga bañ lenn lu yonente bi salaa indi nga bañ ko doonte danga koo jëfe doonte danga koo jëfe yéefar nga génn nga diine lislaam ma jox la exemple nit ki mu ne man ci man burqaa rek laa bañ seen burqaa yi rek laa bañ mu bañ ko ngir jëmmi burqa bi ngir jëmmi li ñi diina la ñuy dund ko genn diina l'islam ijma'an ana dalil bi yalla neena dhalika bi annahum karihu ma anzal allah fa ahbata a'malahum ñom kat dañoo bañ lu yalla wacce ci yonent bi dañoo bañ du yonent bi sallallahu yàlla mu ne fa ahbata amalahum ma màbb seeni jëf ñaata ngay dégg tey seen muuraay rek laa bañ seen sikkim yi rek laa bañ ibaadu rek laa bañ attan seen cëkkal seen cëkkal eh, ahlu cëkkal ak sikkim ahlu cëkkal ak seen cëkkal rek laa bañ yaa axi cëkkal kan moo ko wàcce yàlla moo ko jox yonente bi تيران تبي يالا نين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يلو صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار تبو يغور بو باس دجور سفر له تبو يغور بو باس دجور سفر له دي واخو يونتو صلى الله عليه وسلم لا واخول كوكو داف غير ريرلو دي باي خيل واخول كوكو داف غير ريرلو حديث بي ني لا تدي إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلم ولا يزكي ولا ولهم عذاب أليم حديث بي دا سيباري أنت كوكو دف ري ريلو أك كيغا خم دكو دف مي با ري ريلو مونة كيكو دف تجبلو وشي ري ريلو مونة كوكو في النار دفنا بكار بكو يوب سفر wa lu si yonent bi salaa wax ki def na ngir réy wa man jarra thawbahu xuyala ki ko def na ngir réy réylu kooku benn atte la lam yanzurullah ilayhi yawm alqiyama wala yukallimuhu wala yuzakki wala adabun alim kiko ko def ngir réy réylu tubayam paase dojoor yàlla du wax ak mom yawm alqiyam du ko tudd te du ko te day am mbugal bu metti ci bir ci bir sawara ko gis ngeen gis ngeen différence bi kon faa ñu bàyyi ci xel yonent bi salaa sallam Umar ibn Xataab sukuraat la nekk ci sukuraat xam nga luy sukuraat sukuraat nga xam ne nit day am problème wax man ndax sukuraat nu muy mettee mu gis benn ñoo romb ko tubéy bi paase dojoor gi ñu ne Umar dafa forcé ba wax dafa forcé wax ab métit ak métit ne ko hey hey yëkkati sa tubéy ne ko yëkkati sa tubéy nga xam ne loolu garaaw na nga xam ne comme loolu nekkul lu ndaw non loolu nekkul lu ndaw loolu lu rëy la bu nekkoon lu ndaw Umar bi ngay sukuraat nga xam ne yow li nga war a wax mooy lu gën a am solo ngay mun a génne maanaam ngay wax laa ilaha illallah nga dañ ci am difficulté. rasul sallam laqinu mawtaakum laa ilaha illallah ki nga xam day sukuraat di faatu. na ngeen wax na ko sa diko de la ilaha illallah wala mu wara wax lu am solo jëm ci ay njabotam mais xolal um umar ba muy faatu mu ngi mu ngi gor gorlu di wax mu ngi wax ak difficulté nan ko oh, sa tubey bi cëkkal ko te bo taxawee nga gis ay nit yo xamne ne xamuñu dara ci diine tekkuñu dara ci diine ku ci mel ni docteur Madiambal dajjaal bu bon bi xaw ma jama xaw ma jam xaw ma nu mu tuddati taxaw di saboote cëkkal di saboote sikkim di saboote sikkim ñoo xam ne dara diine lislaam dara ñoru leen ci man am na benn waaye <laughs> am na benn waaye da doon saboote taxaw quoi di saboote ab sikkim benn benn mbokk booy mbokk guerrier yooyu rek commence naan ab sikki bi di wax wax waa ji di wax rek waa ji wax da lu yàgg sawaay kuur rek waa ji di wax rek <laughs> sawaay mu ne ko hee góor bu amul sikkim na saxi weer ñu koy bës moo tax Bakar ibnu Abi Zayd raximahullah benn boroom xam-xam bu bu mag la ba muy tudd ñuru ñuru lu jigéen mbir yi nga xam ne jigéen ci da koy ñuru ñuru lu góor da cee boole wat sikkim xataa ibnu taymiya rahimahullah du jëmmi lan la lu tax ay sikkim lu tax ngay cëkkal jëmmi jaamu yàlla la xam ñu ngi naan déedéet la ñuy bañ sobe déedéet du sobe jëmmi yàlla wax jëfel appliquel tout dafa mel ni sàddi jamra sàddi jamra boo taxawee di sàddi jamra lu tax ngay sàddi jamro mais yàllaa la digal defal simple dafa simple léeg-la ñu ne ay seetaane la ñuy sànn rek dara warul loolu dara awu ci maanaam lii jaamu yàlla la def ko yàlla moo ne nga def ko boo demee Màkka da ngay dem Mina fanaan fa jóge foofu ñu ne demal Arafa nga fanaan fa pourquoi mais yàllaa ko digle defal ni ki noonu cëkkal yëkkati ko yëkkati sa tubéy bu mu paasee dojoor yàllaa ko digle def ko sa yoon warul nekk ci lu tax ñu digle ko lu tax ñu war ko def pour quoi sobe bi moo tax bu amul sobe kan moo la wax loolu bu fekkoon sobe bee tax sobe bi la moo tax mu ne jigéen ñi seen seen seen seen jilbaab nay direeku seen yëre nay direeku ba mu waxee loolu yaa Aïcha da cee comprendre ni da cee ni ñoom jigéen ñi ci lañ bokk mu ne ko yonente bi ñun jigéen ñi comme suñu yeel day feeñ de mu ne ko la tur xiina shibran noo yéen yéen na wàcc yéen sëmbaxtal leen ko na wàcc na passé dojoor gi comme loolu day génne nit ki diine lislaam bañ lenn lu yàlla digle bañ lenn lu yàlla digle moo xam sikkim la ak lu munta doon moo xam sikkim la moo xam cëkkal la moo xam burqaa la nga ne lii rek laa bañ ñii ni leen bañee ak seeni burqaa ñii ni ma leen bañee ak seeni sikkim ñii ni ma leen bañee ak seeni cëkkal bañ nga lu yàlla wàccee ci yonente bi sallallahu alayhi wa bañ nga lu yonente bi sallallahu alayhi wa digle مرا يعلمون ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم نيوم كات دانيو باني كي سينو خول لو يالا واتي لو يالا ديغال يوتو صلى الله عليه وسلم موم لاني باني يالا من فأحبط أعمالهم ما ماب سيني جوف ني نيك اي يوفر بالا نجي خيل بو باخا باخا باخا باخا باخا ميريغا خامني ليله da ngeen koy jàppee lu tuuti fekk inda allahi azim fekk ca yàlla lu réeréeréeréeré fekk ca yàlla lu réeréeréer lu ndaw nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ay naam naam boobu tamit beneen mbir la boo xam ne day génne nit ki diine lislaam ñu dem ci euh, juróom beneen bi naam kama qaala azza wa